asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatuhu mbokk yi nuy eh, teewlu fu ngeen mën di nekk ci réew mi nga xam ne moo di Sénégal wala ci bitim réew ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balaax te di leen balaax di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides yàlla gën ko fee yàggal lool te gën ko wéral ñu koy ñaanal mbooleem kilifa yi dina yëpp mbokk yi ñu ngi waajal màggalu tubaa 18 safar di atum 1446 eh, ginnaw yonent bi alayhi wa sallam 2024 ñu amal le 23 août inshallah, rabbi ñu nekk ci nak ak comité d'organisation bu grand magal bu Touba ci njital Serigne Bassirou Serigne Khadir ak commission yi nga ñom la commission yi mi commission bi nga culture communication di def ay ngir gën a yaatal li nga xam ne moom moo di njàngaleem sëriñ bi ak mag ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak sëriñ bi ci loolee tey jii ñu ñëw fii nag ci Guédé Guédé Bousso pencum sëriñ Mbacke Bousso ñu ñëw fi ngir fas yéene fee leeral yu bare bëri yoo xamante ni mi ngi ci barab bi ñu ñëw nag fekk fii ki nga xam ne moo ko fi nekkal di xalifaam muy sëriñ Omar Bousso ñu koy ñaanal moom it yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko dolli ko kàttan ci barkeb Cheikhul Khadim ànd ak njaboot gi ak yëpp Euh, kon mbokk yi euh, dañuy jébal kaddu gi rek nga xam mom modi di Serigne Fallou Bousso Assane nek borom xam-xam nek it nek nekk euh, kat waye it mu fassiyene ñëwaat ak ñun ci num gëna yaato rek ci li nga mom modi lenn ci dunduk Serigne Mbacké Bousso ni melo nak nag ak Cheikh Ahmadou Bamba mu Cheikhul Khadim waye ñëwaat tamit ci lenn ci li nga xam mom mo jëm ci magal Touba ndax comme mom lañuy wajal Euh, jaadu na ñu indaat ay leeral tuuti ci li nga xam ne moom moo di euh, màggal gi ak euh, na nga xam ne noonu la amee woon ak sëriñ Moulay Bousso kon bisimilah sëriñ Fallou Bousso إنني وصت بالإله المعين من جميع baax jaara ci nuyoo mu àgg ci mboolem ñi nga xam ñoo ngi ñuy topp di ñu seetaan ak di ñu déglu di leen nuyu nag ci turu sëriñ Omar Bousso mi nga xam ne nii mooy xalifa sëriñ Mbàkke Bousso di ko ñaan suñu borom yàggal ko fi te mottali naal na ko ci njaboot gi waaye di nuyu ak ziar ak ndokkale bu baax al xalifatul am lil muridin Cheikh ko suñu borom yàggal ko fi te mottali ay naalam di ndokkeel mboolem jullit yi mboolem taalibe ci bis bu mag bi jëm ci weeru tedd yu ñu nekk ci weeru safar te dox jëm ci fukki yeeg juróom-ñett di ñaan su moom àgg ci jàmm ak salaam di mën koo joxe ni borom bëggoon ko ko joxe noonu te ñu daje ci ngërëm leen dalal jàmm nag fii ci Guédé Bousso Guédé nag niñ ko baaxoo ñu bari xame benn la ci pàkk yi nga xam ne nii pàkk Serigne Touba ci la bokk te ñu koy wax penk penk nag mooy fi nga xam fa ngay denc la nga gën a fonk ci say mbir maanaam sa wanagu wàlla nga xam fa ngay denc si nga gën a fonk dañuy xam ne Guédé penk la ci penk sëriñ Touba yi nga xam ne nii dëxëñ na fi lu baree baree bare ni ñu ko xamee nag wala boog ni ko histoire nettalee nag barab bi ci li gën a siiw sëñ Mbàkke mi ngi ko sànc ci atum 1916 diggante 1916 wala 1918 ndax léeg-léeg at dates yi dañuy wuute waaye dañu jàpp ne kon mën nañ ko tàmbali 1916 ba àgg ci 1918 sancoon ko tam ci ndigalu sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ndax wax nañ ne sëñ Mbàkke jamono yooyu mi ngi woon fi ñu wax lasar lasar moo ne ci wetu ndaam arrondissement ndaam bi ci gannaawam noonu ci raay bi foofu la njaboot gi woon jamono yi nag ci la ko sëñ bi woon ne ko fekk boobu mu naal jumaay Touba <coughs> mu ne ko bëgg nga dem ba ci sama kër ga ca Touba nga natt lu toll ak ñaari mil ci wetu gànnaar gi te sam sanc fa ngir naal boobu ma fay naal su àggee nga mën di ko taxawe wax nañ sëñ Mbàkke bi mu ñëwee natt na ko ci façon yu baree bari ci lu muy jàng ak lu muy xool ak lu muy jéego ba mu jox ko barab bii tey muy géde mu ñëw sanc fi waaye nag sëñ Mbàkke moom ci ni ko histoire ne te dafa wax ne moom comme sëñ bi da wax ne ko demal Touba jox koon wenn tur moo tax bi mu ñëwee turu fekkoon da ko bàyyi kon gedde turu déeg la bu fi newoon boo xam ne nii ndox dafa daan daje te ba léegi sax jeexee tu déeg boobe mu ngi fi moom mu bàyyi ci turu kon mësu koo jàppee ne moom da koy génne ci biir Touba ndax sëñ def kon boo demee ba Touba. kon noonu la fi nekk ci atum 1917 1916 jëm noonu di fi yar ak jàngale comme ni ko sëñ bi digale woon formé fi mbooloo mu baree bari ci njabootu sëñ waaye ci euh, njabooti magi sëñ bi ba ci atum 1946 mu jóge fi. ñu denc ko barab bii nga xam ne ni gis nañ ko léegi di sant sëriñ bu baax ci taxawaay bi nga am na ko ci ci yeesal ko ba gën a neex a siyaare ànd ko doomam ji nga xam ne nii moo ko doon jàppale ci liggéey bi ñu leen ñaan su borom kàttanal leen fi loolu nag mooy jëmmi sëriñ Mbàkke ci Gédé kon diggante sëriñ Mbàkke ak sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu nag di diggante bu yàgg boo xam ne nii defe naa ne histoire nettal na ci lu bëree bëri am na lu bëree bëri lu ci des loo xam sax mënaguñ koo xam ndax li ci feeñ lañ mën a xam ndax bi leen yàlla boole ci mbokk ba noppitam ndax boo xoolee tey sëñ Mbàkke diggam ak sëñ wàllu mbokkuk deret day mbokk gu jaxasoo lool ndax boo xoolee soxna Faati Balla mi nga xam mooy waajur wu jigéen sëñ Mbàkke moom do moom maam Mor Anta Sali ñoo bokk maam Balla kon day mel ne moom bàjjan maanaam moom waajur wu jigéenam bàjjan lay doon sëñ Tuubaa bàjjan sëñ bi la ndax moog waajuram ñu góor ñoo bokk baay boo xoolee waajur wu góor sëñ Mbàkke te muy sëñ bi soobe itam moom maam jaaram mi nga xam ne ni mooy waajur wu jigéen sëñ ñoo bokk ndey ak baay moo tax day doon foofu ba tey doomi nijaayam foofu moo tax suñ bu ko masaan woo da ko jàmm na ma wa xaali da ko yow sama doomi bàjjen ak sama doomi nijaay foofu la seen relation tàmbali muy relation bu yàgg ci wàllu euh, deret waaye nag yàlla boole wàll leen tam ci wàllu ruux ci wàllu yëg-yëgu biir ñu niroo mbir yu baree bari nag ndax niñ ko histoire nett la sëñ Moussa Ka bind ko ci ay mbindam wax na ne sëñ bi bi njaboot gi nekkee ca Saalum ca Poroxaan jóge na bis ci bool dem seeti sëñ bu soobee foofu ca Poroxaan nañ wax nañ bi mu demee bay tàggoo suñ Basiru ne ko da ngay dem ci ku ñuy wax suñ Maxtaar Si suñ Maxtaar Si nitu yàlla ku baax la woon ku am ay xiimataan xam naa boobu am na lu ko suñ Basiru bëgg wax te mënu ko waxal boppam ba mu demee ci suñ Maxtaar mu ngoog mu ngoog kon ne ko bi waxee daf ne am na loo xam ne ni moo waroon suñu borom moo ko dëloon sëñ bi dénkoon ko sëñ bu ndax xëy na boobu moom mu téyal ko ko ba war koo jébbal sëñ bi nag moom la sëñ bi doon jël si jamono yooyu bi mu ko yebalee suñu maxtaar si moomu nag na ko na ko waxtaan ak moom wax nañ bi mu demee suñu maxtaar si nag suñu maxtaar def ko ne gis naa la nga bëgg a waaye na nga toog gis wax yu bëree bëri daal ba noppi ne ko nag na nga fonk sëñ Mbàkke te fonk Ceerno kon diggam ak sëñ Mbàkke foofu la tàmbale wax nañu sëñ bi mu dellu soo ci kër gi dafa laajte àll wa sëñ Mbàkke ñu jox ko ko fekk na boobu sëñ Mbàkke nga toll ci wala tamut danaa yi nekk ci robo ju mujj ji sërutu taaha moom it di am teg lu muy tegtal seen ànd ñoom ñaar foo mu daal koy jël bindal ko ci bind wax nañu boo fekk sëñ Mbàkke génn bi mu ñëwee nag dafa laajte sëñ ñu ne ko sëñ bi dem na mu daal di jël àlluwaam daw topp ci gannaaw sëñ bi daw ba fekk sëñ bi ci ron genn bente ne garab gu mag gu bente ne sëñ bi taxaw fa di serlu mu ne ko sëñ bi ne looyu mu ne ko sëñ bi ne yow laa doon négandiku fii laa doon négandiku fii sëñ Musaa Ka dana koy bind ci ci ci ci marché bi su mu Ka nee na foofa sax tàngoor bi métti na métti waaye ko sëñ bi génnee na fa ak lem ñoom ñaar ñu bokk ci xéewlu nee na sëñ sax daan dem mu yàgg sëñ Mbàkke nee na ko sëñ daan léegi daan toog mu yàgg man Mbàkke yaa ngi fàttaliku ko foofu nag seen ànd tàmbale bokk na ci ko fa sëñ nag def ko ne bu dul woon man di yow daal ne ko yow yaay loolu lépp nag histoire la boo xam sëñ Musaa Ka moo ko nett li bind ko ñu mën caa dellu muy lu fi nekk kon sëñ bi defoon ko foofu la seen ànd tàmbale mosuñu tàqalikoo nag ba ni sëñ bi delloo ci borom kon foofu la seen ànd gën a tàmbale ñu joxasoo sëñ bi mottali ko alxuraanul karimam jàngal ko lu ñu ëpp ci téere xam-xam yi door koo yebal ci ku ñuy wax sëñ Sàmba Tukulóor ga ngir mu mottali fa yenn téeréem ba mu fa jógee mu yebal ko dëkk bu ñuy wax Ngéeg Fall ngir mu mottali fa yenn téeréem ca barab boobeen wax nañ ci 1883 nag boobu sëñ baa ngi Mbàkke Kajoor ci la sëñ bi defee wooteem bu siiw boobee nga xam ne ci la doon yeesale liggéey bi ko sëñ Mbàkke dégg daal di ñëw yeesal ak jaayanteem ñu ne maanaam bokk na ci ñeen fukki yi xam ñoo njëkk a jaayanteeg sëñ bi sëñ ci la bokk bu dul juróomeel ba ci diggénn juróom yi wala yooyu ci la bokk def defal na ko lu ko jiit dénk naa la ko kon moom loolu dénkaan la ni ko sëñ bi leer la kon xëy na loolu lu mu doon yeesal rek la waaye ñoom seen ànd boobu jiit woon na loolu ca Mbàkke Kajoor nag ba ni sëñ bi laqoon nag taqalikuñ benn yoon ñu ànd jógee mbakki Kajoor ñëw Mbàkke Bawol ci mille 1885 sëñ bi di ànd ak moom wax nañu ba ci xalwa ñu doon dugg sax wéetal boroom da ci daan ànd ak sëñ Mbàkke xam ngeen ne 1885 ci la sëñ bi taalif Masaalikul Jinaan ci jàkkey Mbusoo bi ji ci Mbàkke Bool wax nañu bi mu koy taalif ci xalwa bi nekkoon mook sëñ Mbàkke ñoo àndoon ne ci biir xalwa bi lu masaan taalif jàngal ko sëñ Mbàkke moo tax ñu ne sëñ Mbàkke daan wax naan ku dul bi de maa la gën a dégg moom moo ko jàngal boppam noonu la ñu ànd jóge fa dem Daaru Salaam ba ni sëñ bi sànce Tuubaa ñu ànd ci sànc bi sànc bi bi sëñ bi sàncee Tuubaa tam xam nga def fi diir bu yàgg juróom ñaarat la ci def yu mel noonu daal fii jóge dem Mbàkke wax nañ bi mu fi jógee dem Mbàkke bari itam dafa woo sëñ Mbàkke moom ko liggéey bi kat xam nañu fii xat na te jaxasoo bari na te bëgg na fu mu wéet foo xam ne nii dana fa gën a mën a toppatoo ñi toll ci toppatoo xam nga ne Tuubaa fi la sëñ wàccee mag ñu baree bari boobu nag daal ne ko yoon da ngay des fii boo desee ci kër gii ci Tuubaa ku ñëw nga xool ko su fekkente ne la muy yittewoo mën ko daal di saafara nga saafara ko mu yem ci yow su fekkee gis ngeen ne ku war a jàll si Mbàkke Bari la nga doo ko yebal mu jàll si Mbàkke Bari kon moom sëñ moom la dëroon fii ci kër gi ci Tuubaa moom daal di jàll Mbàkke Bari sëñ bi nag wax na sëñ Mbàkke sax toogaat diir bu gàtt moom it daal dem Mbàkke Bari xam nga sëñ bi yàggul Mbàkke Bari tukkib géej gi nag daal di ñëw tukkib géej gi it bi am ci taxawaay bu mat sëkk boo amoon na ko ci diggam ak sëñ a di anhu xam nga ne bi sëñ Touba nekkee Touba yabaloon na sëñ Mbàkke mu dem Ndar am lu mu ko doon waxal diggam ak kañ daan wax yaay borom Ndar wax nañ ne sëñ ci xam gu mu xam diplomatie ba mu demee waxtaan ak moom waa ji dafa ba bi mu ñëw sax da ko jox addi yu bare bare nee ko boo demee joxal ma ko nga xam ne kon mel na ne diggante bi rek tax na xay na kon tukki bi mu mënut a ñàkk suñ boroom dogaloon ko te suñ bi waroon ci am lu bare bari moo tax yeneen dugg ci ba gannaaw bi tukki bi am. bi sëñ bi dem ndarit wax nañu sëñ Mbàkke taalif na xasiida gu am solo goo xam ne ni da doon défendre sëñ bi di wax moom mooy kan ak tooñ yiñ ko tooñ nga xam ne wax nañu sax mën naa am bu xasiida teeroon àgg ca waajib mën naa am kon sëñ bi duñ ko jël xasiida moom la sëñ Mbàkke tàmbaloon qul lil amir wala turhibka haybatuhu inna al mahabata xitnul adli wa sadadi mu waa ji mooy kilifa gi mu ne ko nag melokaanum kaw bi mu la tiiloo ba doo ko wax dëgg ndax mu ne ko ñaare melokaanu kaw bu ragloo day ànd ak dëgg ak maandu ndax loolu ñoo war a ànd donte moom nekkutoon ci moom xëy na waaye loolu moo war a kon noonu la koy wax ci biir di ci défendre semi ñoom ñooy ñan dem na banaa ko sax ñii nga amal affaire ñoom xawmun laa yaarifuna siwa xisyaani masjidihim aw xarsi aw darsi alwaahim wal xarsi bil jalad mu ne ko ñii nga amal nit lañ ñoo xam ñoom ñetti mbir dong lañ xam mooy toog jaamu seen borom dem jàkka ji ñibbisi ak jàng seen i allo mooy jàng xam-xam ak bay seen tool kon ñooñu tooñuñ kenn amuñoo kenn affaire kon yaa ngi tooñ noonu la koy topp ci biir xasida gi waaye nag dañoo xam ne xasida mu laataa fekk na sëñ ñu àtte ko ba mu dem ci géej gi bi sëñ bi demee ci géej gi nag xam nga tubaab yi dañoo tasaaroon njaboot gi Mbàkke Baari nangootuñ ko fa dëkk Tuubaa gi nangootuñ ko fa dëkk njaboot daal di tasaaroo ci biir suñu mhm. mbàkk diir li sëñ bi ne ci géej gi nag mosu ñoo tàqale ko benn yoon ci jokkaloo ci ay wàllu bind ak yooyu bi sëñ bi dellu siwaatee tam jóge ci géej gi nag relation bi gën a àndaat ñu ñu wéyalaat liggéey bi ci jaxaso sëñ bi wóolu woon ko lool nag doyloo woon ko lool boo demee ci mbindum sëñ Modou Bousso ci bi muy bind biographie sëñ Mbàkke dafa wax ne sëñ bi daf ko féetale woon wàllu àtte ci yoon wi féetale ko wàllu natt jàkka yi féetale ko wàllu jàng ak jàngale féetale ko wàllu saytu lépp luy mbirum diine ci yoon yi moom la ko sëñ bi farale woon moo tax mu mën nañu wax moo doon secrétaire sëñ bi ndax lettre yu bare bari moo ko daan bindal sëñ bi tey boo xoolee autorisation demande jumaay Tuubaa ji sëñ Mbàkke moo ko bind ci ndigalul sëñ bi sëñ bi signé ci suuf boo xoolee lettre bi sëñ bi doon jaalee jaale Cheikh Sidiya baaba moom it sëñ Mbàkke moo ko bind ci moom tam la ko sëñ bi yónnee woon mu yóbbu ko Mauritanie di jaali sax Sidiya ak yeneen lettre yu bare bare yoo xam ne daana ko bindal sëñ bi kon foofu la fare woon sëñ bi jumaa yu baree barit moom la sëñ bi moom moo ko natt mu jubal xibla bu jumaa yi Tuubaa ji ngay gis ni nga na ci gën a jumaa yi gën a jublu xibla ci Afrique wala boog moom xiblaam dara du ci mooy sëñ Mbàkke moo ko natt ci xam-xam boo xam ne nii def na ci gëstu yu xóot kon foofu la ko sëñ bi faraloon mu farale fa doyloo ko lool nag moom it mu doyloo woon sëñ bi lool nag ba des jox jokkalante sax ay bayit nañ leen léegi ay bayit yoo xam ne nii ci barab bi bi ñu demee ci barab bi ngeen gisee foofu sëñ bi moo ko waxoon sëñ Mbàkke wenn bayit lañ ci jàng mu ne ko fa mu koy wax ne ko ilaa man maala qalbi luqyaaw xalili anisi man radina sajaaw sëñ bi daf ko bind ne ko maa ngi bind ki nga xam ne ni sama xol dafa jéng ci dajeeg moom lool dama ko namm daal daan ne ko nag mooy sama xarit mooy sama wéttal ki nga xam ne jikkoom yëpp neex na ma kooku noonu la ko sëñ bi tënkee ci ay bay ak yeneen bay yoo xam ne ni moo topp ci biir ñu waxtaan ko sëñ Mbàkke daan ko xamal nit ñi bu baax a baax ci xasidaam googu ñu wax araaka nga xam ne ni wax nañu bi nga koy may juróom fukki bayit daanaka boo ko jàngee da ngay xam melukaan sëñ bi dëgg-dëgg wax ni sax ne bi mu ko wayee sëñ bi ci bopp moo ko waxal ne ko yow bëgguma nga di ma way ndax sama waye nit ñi dañ may xam te bëgguñ bëgguma nit ñi ma xam ma moo tax moom nangootu ko wayaat ga wayaatu geneen xasida bi fi sëñ bi bàyyi ko tam ci ndigal loolu ci la sukkandikoon ba nangu koo defal marsiya sëñ Modou Boussa doomam ju mag moom la jox ne ko defalal marsiya sëñ bi moo tax marsiya sëñ bi sëñ Modou Boussa doomam sëñ Mbàkke Boussa moo ko def ndax la ko sëñ bi waxoon doyloo ko sëñ bi doyloo woon tam moo taxoon nag ba sëñ bi demee ba xam ne mi ngi bëgg a dellu ci boroomam wax nañ ne wax na Cheikh Mamadou Moustapha ne ko bis ba jotee nag ma yóbbu Touba te teg ma ci loxol sa baay Mbàkke noonu la ko waxee bi bis ba jotee tam ci ñaar fan ci weeru Muharram ni ko xamee bi sëñ bi delloo ci boroomam suñu andi ko Touba bi ñëwee itam sëñ Mbàkke lañ woose boo fekk dañu wax ne mi ngi mi ngi gedde gi fii lañ ko woosee mu daal di ñëw nee ndaw li ko doon woo sax bi mu ñëwee fekk na mu waaj ba jekk na ko man de jàppoon naa ne sax du agsi fii ci la daal di ñëwee bi mu ñëwee wax nañ ne bi ñu tegee sëñ bi moo dox ay jéego ba mu ma ne fii la ma waxoon wax nañ bi ñu ko toppatoo pax mi bañ ko kiyee gis nañ fa jeexit yoo xam ne nii ka àndoon ak sëñ bi bañ ko fay def boo ma ci jotaay mu ne fii mu ne lii de maag si ñu àndoon ko waaye xamoon ni tax mu def ko fi mu def tam mat gu am solo goo xam def na ko fa mooy ak dalam ak tekk ak teeyam ci la fexee ba lépp ñu réglé ko ba lépp jaar yoon te kenn dara débordé wul ci gannaaw sëñ bi nga xam ne wax nañu sax am na mag moo xam ne dem na ba def yëfi murit daanu ci misaal waaye suñ mbàgg daf koo gëdd ne ko xanaa xamoo ne bis bañ ñuy defar bisub tey bii moo taxoon nga xam ne moom yëg yëg boobu la am amuk daal ba toppatoo sëñ bañ demee sax bay waxtu fajara jot wax dafa ba nga ne nañ bàyyi li ñu def lépp dem jooxe waxtu loolu fa ko teg mooy def ne sëñ bi kat lu waaye masa nit ma santi defal ba waxtu julli jot da ngay bàyyi loolu dem jooxe waxtu ba pare door ñoo àggal li nga ko defal moo tax ñun tam nañ def loola ñu dem julli fajar pare daal di ñëw nag àggal lañ doon def moo tax saamu saaka da koy bind ci kii bi ne moo nu moo nu jiitu fajar jullee ko jullee ko nag mooy moo waar mbooloo mi delloo leen ci yàlla door a dem nag ku nekk dellu këram ba xew-xew amee tam nag mu taxaw Cheikh Mamadou Moustapha ci fànn yu bëree bëri loolu defe naa ne nett nañ ci ay yoon yoon ci taxawaay bu am na ko ci gannaaw Cheikh Mamadou Moustapha ci taxawal xilaaf ak murit nga xam tey bu ñu waxtaanee tey xalif général des murit Sëñ Mbàkke am na jéego bu rëy boo xam ne nii def na ko ci ndax wax nañ ne bi fi sëñ bi door a dafa am ñu siiwaloon ne murid dañoo wuuti ci seen biir ci kan moo wara a sëñ bi ba gouverneur jot ci wax ne sëñ sëñ Mbàkke moo ko bind lettre lettre boobu mi ngi fi ñu mën koo gis nga xam moo ko bind lettre bu gudd a bi nag boo koy liir maanaam maanaam ni mu ko bindee dafa xaw a diplomatie ba nga xam ne jàpp ne sax dafa xaw kii waaye boo fekk nit ñi seen digg tubaab bi foofu la toll waaye nag ci catul lettre bi daf ko ciy leeral lu am solo leeral ko ne ko wuute mënta am ci kon moo war a wuutu sëñ bi mu ne ko ndax sëñ bi ñetti mbooloo rek la fi bàyyi mooy ñim bokkal Maam Mor Anta Sali ñi ay rakam wala ay magam ñi ay rakam tax ndax moo ci magoon boobu ak ñi nga xam ne nii ñooy ak njabootu boppam ak ñi nga xam ay taalibe lañ mu ne ko nag ñim bokkal Maam Mor Anta Sali ñoom bi fi Maam Mor Anta Sali jógee dañoo yoonal Maam Mor Anta Sali ñi def jullit fi bàyyi ko bu nekk mooy dañ ko miraas bokk ak nit miraas seen miraasum baay ba pare bëgg a wëlbatiku bokk ak ay doomam seen miraasum baay mu ne ndax ñoo xam nañu kon waruñoo doon sëñ mu ne ko njabootu sëñ bi ci boppam tam sëñ bi daf leen a yar jàngal leen te xamal leen na leen kat ci lislaam boo demee ba gisatoo sa waajuru góor sa mag ju góor moom nga war a def sa wàcce sa waajuru sa wàcce waajuru góor sa mag ju góor nga koy jox mën te ñoom ñëpp xam ne si amoon Moussa mooy mag kon ñoom duñu xëccoo ak moom mu ne kon moom du xëccoo mu tam mënta jóge ci biir njabootu sëñ bi mu ne ko nag mu des nun taalibe yi mu ne ko nun taalibe yi nag ñaari mbir rek moom na am benn ñii di njabootu sëñ bi dañuy jaar fi leen sëñ bi jaar la woon te jàpp nañu loolu la ñuy def mu ne boobaa daañu leen topp wala ñu ñàkk a jaar fi leen sëñ bi jaar la woon te jàpp nañu duñ ko def te boobaa daañu leen topp ngir warmaal sëñ bi mu ne kon wuute mën tamit noonu la ko defee tey li ñuy wax xalifatul am lil muridina mën a taxaw ci façon bu mel noonu kon taxawaay boobu la am ci gannaaw sëñ sëñ sëñ bu mag bi nekkit fii ci gerte bokk ci délégation bi sëñ Modou Moustapha njëkk a composé ñu dem aji màkk ndax sëñ Mbàkke dafa bind sëñ bi bi mu fiy jógee ñetti mébét dong la fi bàyyi muy dem màkk jumaay Tuubaa ak tabax jàng boo xam fu waay jógee boo bëggee jàng mën fee ñëw jàng moo tax ñoom suñu jógee dañoo daal di song yitte yooyu moo tax ci 1927 rek ci la suñu Maodo Moussa daal commencé waajal délégation boobu ci 1928 ñoom ñu dem màkk mooy yoonu màkk moom suñu mbàkkee ngi ci woon suñ Mouhamadul Fadal Cheikh Mamadou Fadal ak maam Cheikh Anta borom gaawan ak ñi ñu àndaloon ci seen njaboot ci 1928 ñu dem aji ci 19 ñibbisi loola mooy mottali ponk boobu nga xam ne am na xissa bu am solo bu ci am sax ndax sëñ Mbàkke nee na sëñ bi da ko mas wax ne ko danaa ànd ak yow ñu dem siyaare ci yonent bi ko ne moom sëñ bi lépp lu mu wax dana am te gisul na moom na ko jaaxal waaye neen bi ñu demee Màkka man ak Seex Amadu Fadil xasida danaa ko jàng ci barab yonent nga di ko dégg nee na benn bis dañoo ñëw ci barab yonent bi ci siyaare mook sëñ Fàllu te yëgantuwuñ mu jékki-jékki dégg sëñ Fàllu jàng xasida googu nga xam keroog sax muy mat man nag ne wax ne def na ko xaal ndax day fàttaliku la sëñ bi waxoon kon digg mag sëñ bi noonu demoon mu taxaw taxawaay bu am solo ci ginnaaw Cheikh Mamadou Moustapha ba Cheikh Mamadou Moustapha jógee ci 1945 Sëñ Fallu war a nekk xalifa bi Sëñ Fallu doogee nag ba installé nag wax nañ ci la Sëñ Mbàkke wax ne sama mission da jeex na nga xam ci 1946 ci la fi bàyyi ko dellu ci borom ñu te ñu denc ko fii ci bu Bousso barab bi it barab boo xam ne ni barabu ziyaare bu kaay la ndax màggalu Tuubaa gi tey ñi nga xam ñoom la ñuy séntu nii am na ci loo xam ne nii lu bëree bëri fii la bàyyi ko ndax wax nañ ne Sëñ 1921 sori wala 22 jëm diggante boobu ku ñuy wax soxna ummi si nekkoon soxna ci sëriñ Modou Bousso njëkk a nekk xalifa sëñ Mbàkke Bousso dañu wax ne sëñ Moulay da doon siyaare ji sëñ bi ci Jurbel wala boog daa am ku doon siyaare ji sëñ bi ca Jurbel waaw sëñ Mor Xarikan bokk ci taalibe sëñ Mbàkke yu mag yi moo doon dem njaareem di siyaare ci ci ndigal yoon yónnee sëñ Mbàkke daal di dem njaareem soxna ummi si fekk amoon na li ñuy kaabaru béy mooy gàttu béy bu baax neeñ mu jox ko ne ko boo demee siyaareel ma ko bu baax ku baax ki muy sama demee jox ko sëñ bi muy sëñ Mor Khary Kane ak njabootam ak fi ñu ngi leen di siyaare nee na sëñ bi def ko ne léegi sëñ Moulay ne ko téyel ma ko daane ko def na ko sëñ Moulay jox ko sëñ Moulay Bousso boobu fekk na sëñ Moulay doomi sëñ Mbàkke la moom dafa féetoon ak sëñ bi ci njaareem sëñ bi jox ko béy bi béy wi ne ko demal wecc ko lu ma ko am xaaf nee na mu dem ci séeréer bi séeréer yi gënoon jege foofu ci njaareem di ko wecc ko nee na séeréer bi xam gum xam jur bi mu ko gisee def ko xanaa lii seen sëriñ bee koy wutlu mu ne ko am na ko am daa xamutu jur ndax bay xam nga bay ni meuna jurek ni meuna am ki yooyu man ni meuna a gaaw bare neen mu ne ko demal ci gétt gi nga xool xaaf mu la gënal nga jël ko suñ mu daal dem gétt gi tànn xaaf mu ko gënal mu jël ko lolou tam ki ñu ko li moy suñ jann bu sa mom suñ mu laay moom itam suñ mu ko net li nee na mu dem jël xaf mi bimu ñewé ñëwee mi ne ko teyé ko ba ma wax la ci dara nee na fan ak juróom-ñett ci wéru safar bimu joté jotee mi ne ko dama indi gatt bobé bimu ko ne mu ne ko demal defar ko nga xam suñ mu bu sa mo defar gatt bi fess ko mu ne ko toj ko mu toj ko mu ne ko def ko nangami sam mu def ko nangam sa mu ne ko joxal bi diw joxal bi diw joxal bi diw bokku na ci ñem ci tudon moy soxna Aminta Bousso moy wajur cheikh Abdou Khadir ak soxna Anta balé Bousso momin bokkon ci njabootu sëñ bi mu ne ku nekk nang ko jox cër ñu defal ko ak la cey and ñu defal ko bañ ko defal bari nak mu nekk ay bernde sëñ bi wo mbolam nak ne leen nak dama bëgg bis bi lepp lu ngeen am ci ngeen ko am man itam lepp suma borom defal ci lama ko defal ma bëgg nak ngeen bis bu ñëwati ngeen ni ma sant la suma borom nga xamni kon bisu magal bi fofu la tambalé la doon ciosan yi mooy bis bu ñëwee talibé bu nekk diko def defe sa kër xam naa 1921 wala 22 diggante boobu lay doon année boobu nag wax nañu murid bi nekk da nga ko daan defee sa kër bu jotee nga def ko def li ngay def def say berne kon 1947 ci lañ ko njëkk a woote ñu koy defee sa Tuubaa te Cheikh Mamadou Fadil moo ko woote ngir ay sabab yu bare bare yoo xam xëy na bëggoon na nit ñi daje ak yenn soññe ñu daan def ñu doon ko commencé di ko def si màggalu Tuubaa loolu tam cosaan la ci màggalu Tuubaa bàyyi ko fii ci Guédé suñ Modou Bousso mi nga xam moo ko njëkk a wuutu tam suñ Ceerno nee nañu maanaam bi ko sëñ bi waxee ak at ni mu génnee moom war naa ma juróom fukki at waaye nee na suñ moo nee na ko amul menn at moo xam jéelal naa ko te defaruma ci gàtt ngir barkeeloo ko ci ndigalu sëñ boobee la mu defoon ci bis boobee nga xam ne kon gàtt tam nañ taalibe bàyyi xel ci ne loo mën di def nag baax na gëléem baax na waaye gàtt ci màggal gi la bokk ndax mooy cosaan ni ñu di ko bàyyi xel kon noonu la fi sëñ Mbàkke nekke ba suñ fàllu ñu gannaaw suñ fàllu yu mel noonu ba bis ni ngi tey bi mu jógee 1946 nag bàyyi fi njaboot goo xam ne tam ñu taxaw taxawaay bu am solo ko njëkk a wuutu mooy sëñ Modou sëñ Modou Bousso mooy waajuru sëñ Mamoun Bousso mii di jiite jumaay Tuubaa ji ajjuma sëñ Modou moom mi ko woote ci 1946 ba 1971 bàyyi koo fi sëñ Mawlaay Bousso mi ma tuddoon léegi topp ci moom it nekkoon ñaaru xalifaam mu wutu ko 1971 ba 1983 mu bàyyi koo fi sëriñ Mouhamadul Baqir Bousso topp ci wuutu ko 1983 ba 1993 moom itam mu bàyyi koo fi bàyyi sëriñ Njaaña nga xam moo doon Ahmadou Bamba Salis moom itam xista la ndax sëñ Mbàkke dafa tuddee sëñ bi doom ay yoon yoon mu wàcc mu tuddee ko ba muy ñetteel bi ñu tuddee ko Ahmadou Bamba Salis muy Baye Sëñ Njaañ moom moo wuutu moo ko wuutu moo wuutu sëñ Baaxa ci 1993 ba 1996 moom yàggu fi lool lool gannaaw bi sëñ moo nekkoon nag juróomeel doomu sëñ Mbàkke doom ji ko mujj wut tam ci kaw suuf góor nga xam ci 1996 ba 2010 mu bàyyi ko fi nag sët yi nag foofu lañ tàmbalee sëñ Ibrahima Bousso moo ñëkk nekk xalifaam ci sët yi doom doomu sëñ Baaxa suñ Thierno Bousso moom suñ Moulay moo ci topp doon doomu suñ Moulay ba tey jii nag suñu Omar Bousso nekk xalifa bi ñu koy ñaan suñu borom mu yàgg fi loolu te wér nga gis tam naal yu bari yi nga xam ne naal na ko ci dëkk bi muy jàng bi ngeen gis muy barab bi ay tout tànk di fi jàng di fi sàkk xam-xam jumaa ji ngeen gis itam mu yeesalaat ko ba mel ni mu mel xam ngeen jumaa ji mu njëkk jàkkale woon suñ Mbàkke Ndaka njëkk defoon na fi jàkka moom la suñ Moussa wax naa ko tabax na jàkkay seng mooy mooy booba defoon na ko jàkkay seng ndax boobu seng mooy li gën a am solo ci nit ñi moom jàkkee seng la ko defoon gannaaw si amoon faari moo ko njëkk tabax jàkk bi mu tabaxee jumaa Tuubaa ba pare ci la tabax jàkk jàkkay Gédé tabax jàkkay Mbàkke Xewar ak yeneen jàkk yoo xam tabax na ko ci yeneen barab gannaaw bi nag la ko suñ maxtaar yi yeesalaat def ko muy jumaa ci ndigalu suñ Saaliw suñ Saaliw ne ko na nga ko yàqali te def ko jumaa ñu fiy julli ajjuma ñu tàmbali fi julli ajjuma ci atum 2004 ba jot ni tey jii ñu fiy julli ajjuma ji suñ Omar moo ko yeesalaat nag ba mel ni mu mel léegi barab bi ngeen di gis moom it suñu Omar moo yeesal ci ndigal suñu lañ ko yeesale ñu ñaana doom ñi nga xam moo ko yeesal moom suñu borom gën koo kàttanal ko fa yàggal te ay naalam yeneen barab yi ngeen gis ci dëkk yëpp itam barab teen bi ngeen gis moom itam suñ Mbàkke gasoon ci bi muy sanc Gédé teen bi am na téeméer at fi mu nekkoon ci sancub Gédé moo ko sancub Gédé ñoo maase wax nañ ne xista am solo am na ci ndax wax nañ ne bi mu ko gasee ba mu bënn dafa jël ci ndox mi ñu tànq ci sedd boobu sëñ baa ngi njaareem ñu yóbbu ko sëñ bi njaareem sëñ bi ñaan ci def ci lim ciy def ñu ñëw sotti ko ci teen bi suñ Mbàkke def ay yëfam ñu def ko ci njaq ñoo xam dañ ko dugal ci teen ba mu àgg suuf te tëjut léegi ba mu ko defee bi ci teen mu nekk fi teen bii de képp ku xaruwut doo ci faatu moo tax ci ci li ñu nett li li muy yàgg-yàgg ak li mu doon ubbi jàpp nañu nit mos cee faatu ndax sëñ Mbàkke danoon képp koo xam ne xaruwoo doo ci faatu teen boobu nekk jeexit suñ waxit ne ndox mi mën naa saafara lu baree bari ndax wax nañu bi bi ci ay jamono bi dëkk bi gën a yaatu sàmm yi daanañ jóge fu baree bari ñëw di si wëgg seen i jur ndax dañoo gis boo ci wëggee jur gi day jur gi day naat ba noppi itam day am yu muy def jur gi daal nga xam ne daal kon jàpp nañu tam mën naa saafara lu baree bari ci ay jàngoro moom mooy teen bi ngeen gis barab yi ngeen di gis itam sëñ Mbàkke ko sancoon booba jamono sëñ bi la xëy na sanc officiel gi 1930 la waaye wax nañu doomi sëñ bi tëdd na fi ak maam Seexan tam wax léegi ni tëdd na fi kon xam muy barab bu cosaan moom itam doomi sëñ ak njaboot lu bari bari njaboot suñ Mbàkke itam tëdd fi taalibe yi bare ba tam na wax dëgg yàlla ci biir Sénégal dañuy bàyyi ko fasanti ko fii lañu leen di moo tax muy barab ci barab yi nga xam barabu siyaarukaay kon tam barab bi ngeen gis nii tam ci barabu siyaarukaay yi ci la bokk ñuy ñaanal jëwriñ ji nga xam moom la ko sëñ sant mu yeesal ko mel ni mun mu bokk ci ak njaboot doomam ñaan su borom dëgëral ko te gën baril ay kemam ci njaboot gi bañ mën a liggéey li ñu lépp muy barab boo xam ci barabu la bokk ni ko waxee léegi ndax wax nañ si amoon Fadil mu njëkk a woote màggal gi dafa waxoon ne boo màggal see tubaa te demoo Gédé mi ngi mel ni nga dem Màkka te demoo Madina nga xam ne ci jamonoom kon buñ masaan màggal si Touba diggante bi amoon na espace waaye xawoon naa sore nii tuuti waaye dañ daan def ay mbooloo di bàggante diggante ñaari barab yi di ñëw di siyaare di dellu si loolu tam kon ñuy màggal si ñu gën koo bàyyi xel ci ne ci barab yi ñu war a siyaare ci màggalu Touba ci la bokk wax nañu si Abdou Khadir tam moom ko fonkoon barab bi la dafa daan ñëw di fi siyaare si ay yoon yoon wax nañu nee na barab bi lu fi waaye ñaan bu nanguwul sa positif mo dess kon ñaanu kay la bo xamni am nañ fi yaakar lol lol lol montre bi ngeen di gis ni tam moom it mbacke mi ngi ko liggey li taxone mu ngi ko liggey tam moy ni ñi mëna a ba xam waxtu julli xam ngeen ni légui la yom nga xam heure waye bu njëkk xam heure montre bari wut ni mu bare montre amul mu jëk tam yi ci normal bari bëriwul lol lol yi day retard yi di avance te julli dafa am waxtu julli julleet waxtu jëtul julli ga du baax bu waxtu jallé te jot julli wo sa julli amna la lu cee cey wax kon motax julli dafa am waxtu wax dañ ko wax def inna salaata kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquuta maanaam heure am moo tax suñ Mbàkke nag liggéey ci liggéey bu am solo sonn ci lool lool tam nag ba tax mu defar ci liggéey bi li ngay gis nga bant la moom samp moo xam ne nii moom ker gi ci la daan xamee waxtu bu ñëwee ba ci digg bi am na noo koy natte moo lay jox midi bu ko defee yow nga daal di xool sa daal koy régler def ko midi bu ko defee nag boo xasee xam midi nag bu bu ci fanweeri minute toppee nga xam tisbaar jot na noonu nga xam waxtu yi ci des ba mu àgg montor bi nga gis ne da koo boole beneen téere téere bi mënoo jëfandikoo montre bi te yoroo téere bi ndax montre benn waxtu rek la lay wax téere bi nag moo lay wax yeneen waxtu yi ci des téere boobu nag ñu tuddee ko yawaaqitu salaat fii taqrib awqaati salaat wax nañu suñ mbàkke mi ngi ko taalif ci fanweeri at ak ñett fanweeri at ak ñett yooyu saa yu xëyee dana xool jant bi ban heure la fenk mu note xool ban heure la so mu note nga xam ne bis bu ko ci raw da koy nattaat ca déwén sa fanweeri at ak ñett takk bu am solo ci wàllu xam-xamu astrologie wala astronomie ndax mooy ne atum tubaab beeg atum jullit yi ni ñu rawante bee di juróom ñetti téeméeri fan ak juróom benn fukk ak juróom bii di ñaar téeméeri fan ak juróom fukk ak ñeent kon rawante nañ fukki fan ak benn fukki fan ak benn yooyu ñu rawante nag fan at ak ñett yu nekk day tax fanweer at ak ñett yu nekk weer tam xar day teeru ñaari yoon ci biir atum tubaab yi maanaam kon atum tubaab mi dana mëdd atum jullit yi ko defee léegi da ngay matal bis yëpp moo tax mu tax ko foofu moo tax téere bu ngay gis noonu fii ba àddina tukki moom du jeex da ko ciy natt muy liggéey bu am solo boo xam suñu Mbàkke def na ko ba tax na tey koo gis ci Sénégal muy wax ci mbirum waxtu julli wala waxtu dog koor wala waxtu yi ñuy xëdd wala waxtu yi ñuy bàyyi wala yooyu mel noonu jàppale ne bu ko tuddee bu ko tudd am na lu suñu Mbàkke liggéey ci lam def loolu moom borom xam-xam nga xam ne nii am nañu sell ñëpp danañ tudd delluwaay boobu ñu ci waxtaan kon loolu mooy loolu nga xam liggéey na ko ci muy liggéey bu am solo boo xam ne tam njaboot gi tam di ko wëyal ba léegi tey ñoom nga gis ñuy génne heure dog yeeg calendrier yi nga xam daan jógee Maroc ñu ci defar yoo xam Sénégal lañ koy defar ndax xam foo mën nekk ci biir Sénégal région de Diourbel boo mën nekk ci Sénégal da ngay a xam yow ban heure nga war a julli ban heure nga war a dog ban heure nga war a jàpp ci koor ak hmm. am solo bi nga xam ne nii liggéey na ko ci yoon wi xëy na loolu sax ñëwuñ ci baax a baax waaye xëy na yeneen du ñàkk kon daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal sëñ Omar mi fi nekk nag te am liggéey am solo yoo xam mi ngi koy def ci biir njaboot gi suñu borom gën koo kàttan gën koo wéral ba mën a mottali naal yi taxaw tam njabootu sëñ Mbàkke ba liggéey bi sëñ nga xam ne ni si sëriñ Tuubaa di laanu wóolu woon na sëñ Mbàkke ci fànn yëpp ba teg ko ci loxoom yàlla kàttanal njaboot gi tam ba liggéey boobu ñu man ko sàmm ba man koo jofal ci gën jaa rafet anam di leen sant yéen tam ci teewaay bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Fallou Bousso Assane ci leeral yu am solo yi nga xam ne indi nga ko ci euh, jëmm ji tedd jooju nga xam ne moom lañ doon waxtaanee muy Serigne Mbacke Bousso nekkoon kenn ci mag ñi nga xam ne ñu ngi doon ànd ak euh, Cheikhul Khadim mi nga xam ne moo wootee bés bi ñu dënmal di ko waajal muy fukki fan ak juróom-ñett ci safar dégg li nga xam ne indi na ko ci ni nga xam ne noonu la àndee woon ak sëriñ bi waaye lu ko jiitu mbokk gi nga xam ne dox na seen diggante ñoom ñaar waaye ni nga xam ne noonu la ko nangulee woon ànd ak moom tey yu bëree bëri mu ko daan doxal waaye mu nekkee jëmm joo xam ne ku fonkoon xam-xam la ku fonkoon lislaam la ba tax na gis ngeen li nga xam ne noonu la noonu la noonu la meloon ci am mbind ak jàngale yoo xam ne bàyyi na ko fi ba tey ji njeexantal yi mi ngi fi kon ñu ngi leen di santaat bu baax a baax di leen gërëm ci ànd gi ne àndoon nag ñun ci eh, mboolem leeral yi nga xam ne amal nañ ko fii ci eh, Guédé Bousso eh, ci teewaayu ko ki nga xam ne moo ko fi nekkal tey di xalifaam muy Serigne Omar Bousso ñu koy ñaanalaat yàlla gën ko fa yàggal lool te gën ko wéral gën ko kàttanal di ko ñaanal mbooleem kilifa yëpp ñaanal ko Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di xalifa général des Mourides moom yàlla gën ko fee yàggal te gën koo wéral di leen wax rek ne incha allah daañu dem ci yeneen i barab incha allah gën leen koo leeral ngir ngeen gën ko xam ci euh, li nga xam ne moom moo di wàccaayu màggalu Touba édition 2024 bi di atum 1446 ginnaaw gàddaa gi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf